na koo xam ne aw turam ci turi doomi Serigne Touba yi la damay warmal tur wi jëm ca lam wax rek day wax ci liy xew ci jamono ba yàgg mu ne ndigal amatut ndigal jeex na mu desee peeg lan mooy ndigal ak lu ko ndax lii dajale mbooloo mi fii ci jumaa ji dajale ko feneen ak feneen ak feneen xayya ala salaati xayya ala falaa rek moo leen fi dajale te loolu ndigal la benn su fekkee toolu ba ko taxoon di wax la muy toolu politique it daf caa xaw a juum ndax suñu delloo tuuti ci ginnaaw ay at luy bëgg a jege juróom fukk ak yu teg am na Sëriñ Tuuba mu mosoon a jëfandikoo baatum ndigal mu mel nañ ko bëgge euh, muy diggante fan lu Mbakke ak Senghor loola ba waroom xam-xam yi laajee Senghor suñ fallu astaghfirullah am na ci jublu daf ne àdduna yalla ko gën a xam ñépp moom mi ko bind minkum wa minkum la loolu aaya boobu mi ngi wàccoon ca kero xareb Uhud ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ndigal ne bu kenn def nangam ak nangam taxaw leen fi ngeen nekk gaaya yàlla da leen a àtte bisu keroog xam ne tënku ci ndigal rek mooy li am njariñ ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu kenn jógee fi mu taxawoon te ndigal dabu ko gaaya seen alal ja mun a gàññ yéefar ya di daw ñu ne nañ sàcc daw gaaw jël ca lee fa bàyyi ndax duñ dellusiwaat ndekete yoo li borom maqaamaatul xariir di lebu bay tudd ko xamne euh xar mo xamne dañ ko teeron ba diko beug ray pa ka paaka ñu wër wër na gisuñu ka ba kon nañ ko baye mu delu ci ak njabotam keur keuri jóg ga waral mu pa ka ñu nañ ko fa ray lolo dalon na ay gaay yo xamne seenu kenn mënagu leen caa dabati ndax ab njàmbar weesuwut fab sa bakkante tam jaral la ko la la ko jaral lu rëy lay doon waaye nag sàcc guñ ne nañ sàcc jëfandikoo lu dul ndigal moo waral ba ñuy jël la ñuy jël gaa yaa doxee leen ginnaaw faagaagal ci ñu bari mooy li alxuraan di wax naan wa laqad sadaqakum allahu waadahu id taxusuunahum bi idnihi حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة li boole woon sëñ Fallu Mbàkke ak kooku mu tudd léegi mooy dafa amoon loo xam ne murid yi mënuñ ko woon a ñàkk te murid yi mënuñ ko woon a wut ci seen kàttan ak ci seen alal muy fexe ba Tuubaa am yoon yu sa jëm am ndox mu ñuy naan moo xam ne doo su ko jukkeeti ci ay loxo am ak niit ga waa ndakaaro niitoo am fu ñu leen di faje paju mi paj mi xew léegi la ci tolloo woon ak Touba jamono yooya boole ko def Touba ab dëkk dootoo jaar ci kër yi di jàll waaye foo jaar fu nekk ci mbedd lay doon moo xam ne day jub xocc ba fa nga ko soxlaa nga jàdd dugg ci kër gi nga bëgg fu ci nekk am ñeenti jën yuy wane ne fii la kër diw tàmbalee fii la kër diw yam jooja doole booba murid yi amaguñ ko woon